hôpital militaire mobile boo ko gisee nag armée dafa am ay structure fixe yoo xam ne yi ñu ngi si kër yi ñu ngi si dëkk bi tout le temps di liggéey am ay structure yoo xam ne yi en cas de crise la koy déployer crise bi mën a nekk guerre mën a nekk aussi des événements sanitaire majeurs comme bii ñu nekk boo ko gisee biñ ñëw nag hôpital mobile de niveau 2 la hôpital bu mag la parce que hôpital bi boo ko xaymaa si xaalis ëpp na un milliard trois cent millions de coût hôpital bi am na ay gynécologue am na am na sage femme am na médecin am na chirurgien dentiste am na aussi pharmacien ñoom ñëpp ku si nekk da ngay def sa liggéey ni mu bare li ñu indi fi Touba nag xam ngeen dafa am yu xew si réew mi mooy ay jàngoro yu ñu gis si fan yi muy jàngoro ñuy wax maladie liée au coronavirus bu ñuy gën a xam si Covid 19. buñ bi mu amee Touba ñu dajale ñi koy am yëpp di leen fajee centre de santé Daaru Marnaan te centre de santé boobu aussi dafa am lu mu doon liggéey si dëkk bi bañ ko tëjee di si fajee ñooñu ña fa doon fajoo ji il faut ñu trouver leen fu ñuy faju looloo tax euh, ñu jiit réew mi autorité yi ak ministère des forces armées décidé indi hôpital mobile bi Touba moo xam ne lii lépp lu centre de santé Daaru Marnaan doon def dina ko liggéey ba baa ñuy trouver beneen solution wala mbir mi yàlla jeexal ko jàmm opital bi nag mi ngi fii day faj gratuitement population yi ku xëy ñëw dinañ la faj am nañ ay médicament yuy joxe évidemment dans la mesure de liñ am danañ la defal aussi ay examen radiologique su dee yi nga soxla fi la bokk dana defal aussi ay analyse su dee li ñuy def li ngay soxla si analyse am na fi am na aussi ñeenti médecins si yoo xam ne yi armée bi moo leen fi indi mais ñooñu dañ leen a yóbbu directement si ñuy fàcce coronavirus parce que dañ leen a dajale si benn centre ñoom foofu lañ nekk. loolu nag mooy suñ mission mais aussi ñu ngi Touba mën nañ ku nekk mën nga am kaawu coronavirus pour faj ko donc si pour détecter ko wala mu commencé si yow moo tax ñu jël suñuy. ñu farlu jël suñuy mesure que suñ gisee un cas alerte danañ def li si war ndax xam c'est un cas suspect woo ñi ko war a yóbbu ñu dajal leen fi ñu leen war a dajale di ci lëkkaloo nag ak district bi ak euh, médecin chef de région bi docteur Dieng nga xam ne bañ commencé ba léegi aussi ñëw na fii mu ñuy jàppale euh, gouverneur ñëw na fii monsieur le maire recevoir nañu euh, monsieur le préfet ñëw na fii ñoom ñëpp ñu ngi montrer seen disponibilité pour jàppale ñu ci ci liggéey bi ñuy def bi. heure yi hôpital bi day faj suba ba ngoon lii mooy bu xëyee suba teel nit ñi lañuy xëy liggéey si ñu continuer liggéey dina am tuuti pause nit ñi añ dina am ñu fa des ba di heures bu di heures jotee nag liggéey bi dina am ñu wàcc mais hôpital bi dina am à tout moment ñoo xam ne ñii bu dara xewee ñoom ils sont désignés ñoom ñooy jóg faj su soxlaa aussi ñu woo keneen ñu woo ko donc dina am système d' astreinte mais astreinte bi du pour def des activités normales activité boo xam ne bi exception la wala accident la wala lu loo xam ne lii xaaruñ ko daa lii diire bi ñu ngi ñëw pour weer lañ ñëwee ñu ngi ñëw pour toog fi weer mais euh, comme ni ma leen wax dañuy évaluer situation bi su fekkee ne weer bi situation bi normalaat na lépp jeex na jeex na su fekkee ne aussi dem nañ ba si digg bi ñu xool ne dañuy changer de les façons ñun ay soldats lañ lu autorités yi décidé rek dañ siy def mais yaakaar naa ne en tout cas nous sommes ñu ngi fi daal pour au moins un mois incha allah.